Abdelkader Diarra ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay monsieur Gomis ñu ngi lay fay bu baax. ñu lay dàkkantale Kader Pichini nga nekk artiste comédien jiite tamit comité de relance du théâtre nga bokk kon ci communauté euh, théâtrale bi. ñu war a màggal bëccëgu euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bi bëccëg bi nga xamante ne àdduna wërngal këpp dañ ko jagleel théâtre ci définition lan nga ñu mën a wax luy théâtre ak rôle am. bon théâtre de bu ñu koy wax ci commencement ci njëlbeen fekkee ni am na convention boo xam ni dafa am ku taxaw ak euh, di di wax di théâtre di wax ak keneen ku koy déglu mm. automatiquement foofu am na théâtre mais théâtre tey dafa bëri ay pàcc dafa bëri ay théâtre yoo xam ni dañ koy jàng école muy théâtre académique am théâtre boo xam ni théâtre populaire la mooy bi ñu xam ñun nga xam ne ñun ñii si lañ soqe ko sax ay bisimilah ñoo ngi door def ballet danse lu ñuy wax théâtre total mu am théâtre de sensibilisation théâtre d'intervention bi ñu woowee aussi théâtre forum voilà yu bëri daal moom moo am de yooyu yëpp ci aar la bokk. ci yan anam le monde théâtral bi ci Sénégal di ba bëccëg bi. comme niñ koy faral di defee toujours rek ci 27 mars journée mondiale du théâtre képp ku ne fa mu ne te ngay yëngatu ci théâtre di nga organiser benn panel pour réfléchir sur comment. ngay relancer sa théâtre lan mooy problème bi naka nañuy euh, financer sa théâtre ku nekk daal ak temam ba pare ci ngoon ñëpp ñu bëri danañ créer ay podium yoo xamante ni euh, ku nekk dana fa jouer ay sketch am ay pièce am fu nekk ci Sénégal ba ci centre culturel yi nekk yëpp ci Sénégal yoo xamante ni dañuy accompagner aussi pour ñu mën a feete suñu bés. nga jiite comité de relance du théâtre boobule euh, kuréel lan moo ko tax a jóg ak luy sabab bi. waaw comité de relance du théâtre mooy maanaam euh, ministère de la culture moo toogoon gis ni théâtre bi amoon euh, problème fu muy sooxee bëgg xool euh, benn comité boo xam ni foofu la ñuy waxtaanee lépp li nga xamante ni mooy solution yi ñu ensemble maanaam ñu waxandoo benn baat hmm. moo taxoon ministère de la culture à travers la direction des arts woo artistes yëpp ñu toog na leen dama bëgg ngeen créer benn comité de relance du théâtre boo xam ne mooy organiser journée mondiale du théâtre moom moo leen di waxal Euh, ñun ak ñoom ak ministère bi loolu moo waraloon ñu convoqué ay ñu bëri ñoo xam ne fu ne lañ jogee ci association yëpp. Mhm. ñoo toog ñu def assemblée ñu voté pour ñun ñu mën a ànd pour defar théâtre Sénégal. Mhm. ñu gis ni tamit euh, théâtre niñ ko doon defee ak léegi àdduna dafay dox ba léegi ñu ngi ci ère numérique ak réseaux sociaux yi ndax da jàpp ni théâtre Sénégal méngoo na ak jamono fu mu toll. non yeggaguñ foofu yeggaguñ foofu de plus que bi nga xamante ni mbas mi ci la duggee si lañ comprendre ni war ngaa def yenn sketch yi captation mën koo dugal ci biir internet pour mu mën laa jëriñ dara mm-hmm. nga mën a nga mën a am payoor ci biir parce que théâtre bi nag problème am mooy mbas mi bu mu ñëwee ba léegi munu it munu mm-hmm. ah, mënuñoo yéeg sur scène parce que boo yeggee sur scène il te faut un public te public bu amul rassemblement dañ koy tere donc doo mën doo mën a jouer mm-hmm. foog naa daal am na ñoo xam ne ci mbas mi lañ comprendre ni numérique bi dafa bokk ci théâtre bi même même ci biir mise en scène gisaguma fi quand même ñuy def mise en scène ba boole ci un peu numérique euh, wala digital mm. mais au fur et mesure ñuy def ay formation di bëgg nekk au même diapason que le théâtre dans le monde je pense que on y arrivera incha allah ñu gis ni théâtre jamono yi ko sénégalais doon dundee ak ni ñu ko doon euh, seetaane wute na ak léegi ndax ci jamonoy télé réalité la ñu nekk mu am ay série yi nga xamante ne moom la ñuy gis ci télé yi lan nga mën a expliquer boobule taamu bi nga xamante ne daanaka mën nañoo jàpp ni sénégalais léegi fa la ñu jublu. waaw non audiovisuel bi sax maanaam tey jii nii euh, am nañ moyen Fopika mi ngi fii ñeneen ñu ngi fii ñoo xam ne mën nañ am moyen ba def seeni i série euh, am aussi ay télé yu bëri yoo xam ne mën nañ ko vulgariser pour de promouvoir série yooyu noonu xëy na loolu moo tax maintenant euh, bu may wax waxu comédien waxu acteur je pense que dem jeu ji si série yi tamit moo gën a yomb te moo gën a gaaw am xaalis loolu moo tax ñëpp réewu vers loolu waxuma ni série yi nag la ñuy def baaxul dëgg la lu baax la mais Euh, artistes yu bëri acteur yu bëri dañuy dem foofu jouer ji parce que si ngay gën a gis ñu ëpp ñoo xamante ni planche lañu nee ne la différence mooy. Mhm. planche bi moo gën a metti wax dëgg yàlla parce que dangay ngay répété répété répété lu bari ngay soog am dara parce que planche waruloo juum. waaye nag boo demee ci télé ba fële mu ñu filmé mën nañ la ne oh, coupe on reprend on coupe on mhm. reprend ba nga xam ni boo amee directeur d'acteur bu baax mën na la ci dugal ba nga nekk vraiment star entre guillemets. <laughs> mais euh, série yooyu est-ce que yaakaaroon it mën na rey théâtre bi ñu xamoon bi ñu amoon fii. non mais bokkul sax bokkul bokkul parce que léeg-léeg beneen beneen euh, wàll boobu pàccum cinéma la audiovisuel la bokk. lii art vivant la. donc mais ñi nekk ci art vivant bi ñooy faral nag di dem ci audiovisuel bi loolu moo tax ñu naan dana ko rey mais mënu ko rey. parce que lii art vivant la euh, beneen art la bu bokkul ak audiovisuel. <laughs> lan moo wutale comédien bii nekk ci théâtre ak bii nekk ci série. tur yi sax duñ benn. maanaam ki nekk ci théâtre sur scène kooku comédien la moom personnage lay joué hmm. mais ki nekk fële na la moom moom mën nañ ko jël jëmmam ñu abal ko beneen personnage déformé ko def ko lu ko neex mais jeu yi dafa exagéré Euh, ci kaw scène. Hmm. mais bu fekkee ni acteur bi loolu jeu de l' la kooku acteur la tudd acteur c' est beaucoup plus encore intérieur qu' hmm. donc euh, loolu mooy différence bi entre les deux comédien comédien la sur sur les planches acteur la dans l'audiovisuel ñu gis ni tamit ñu bëri bu ñuy méngale ñu gis ni théâtre bu démb wuute na ak bu tey maanaam ñi leen jiitu yéen li ñu doon def ak yéen léegi li ngeen di def bokkul ndax yow loolu nga gis. Euh, non gisuma gisuma loolu ça dépend aussi ban théâtre la ñuy wax bu dee théâtre sur la scène ñu ay texte lañu daan joué ah ay texte ñoo fi ne ñu jiitu tamit ay texte lañu daan joué texte yi mën nañ ne texte Molière la texte Aline Ndaw texte Marba Fall di Sow euh, euh, Aline Badara Bey ñëpp bind nañ fi ay texte yoo xam ne tey jii boo ko reprendre même texte lay doon. Hmm. donc gisuma ci changement mais audiovisuel bi loolu man tuddee ma ko théâtre man audiovisuel laa ko tuddee. Hmm. ñooñu nag ay scénario la ñuy def te scénario fiction la yoo xam ne ku mu neex nga gisee nu mu la neexee. Hmm. loolu moom dañ koy respecté aussi. bu yàggul dara assemblée nationale ci Sénégal daal di nañuy adopté lu jëm ci loi bi nga xamante ne moo leen di jox statut maanaam gëdd artistes yi ak ñu yëngatu ci wàllu aada cosaan Ah, loolu lan la soppi ah, ci seen activité. waaw lu muy soppi suñu activité mooy au moins aujourd'hui danañ mën a wax ni man maa ngi liggéey wala kat lañ ma jàppee te ji état bi mu may soo ko jàppee liggéeykat bu mu ne statut statut de man li ma doon ñu voté ko assemblée nationale pour wax ni ah waa diw de la muy liggéey léegi considéré nañ ko comme liggéey fii ci biir Sénégal. Mhm. loolu daal na xam ne soppi na ko te loolu lu baax la lu jéego bu mag la bu ñu jëm bu ñuy jëmale kanam ñun ci suñu corporation. Hmm. nga di def comédie euh, lu yàgg ay at est-ce que gis nga njëriñu métier bi est-ce que yaa ngi ci dund wala bokk li nga ci yaakaaroon yëpp yaa ngi ko ciy gis ah wax dëgg yàlla nag su ma ko si gisul woon <laughs> du ma fi toog de <laughs> maa ngi koy gis ku nekk am na nooy nooy nooy nooy doxalee sa carrière je pense man aussi maa ngi ci carrière depuis yàgg na maa ngi ci biir liggéeyu ma leneen nag lii laay liggéey donc bu fekkee doxul woon defe naa damay changer métier. Mhm. lu mooy euh, statut bi ñu leen jox yan nga gis ni moom ngeen jànkonteel ak jafe-jafe yow ak say naataango yëpp ci wàllub théâtre bi. waaw ci wàllu théâtre bi li ñu jafe-jafe yi mooy amatuñu ay création yoo xam ni mën nañ ko yóbbu bitim réew ba mu ñuy représenter Sénégal fu fu ne hmm. comme niñ ko daan defee te loolu li ko waral tey mooy amul création te création boo koy def dafa war a am subvention hmm. le théâtre est subventionné dans le monde dañ koy dañ koy subventionné donc euh, xëy na dañoo manqué fond bi nga xamante ne mën nañ dem di tibb foofu pour parce que lii développer théâtre dëgg dëgg dëgg dëgg bu ñu ko résumer moom mooy euh, euh, formation il faut être formé ak création ak diffusion. Mmh. loolu moom mooy développer théâtre loolu pour développer il faut que ñu am benn fond. Euh, boo xam ni c'est alloué au sous-secteur théâtre nga xam ni chaque année pour def création mën nga dem jële ji foofu noonu pour def sa création bu mën nga mën ko yóbbu fu ne ci monde bi nga dund. est-ce que loolu tamit du ci yéen est-ce que leen organisation seen biir. Euh, organisation est-ce que loolu organisation la parce que man pour man képp koo xam ne am nga compagnie mën ngaa mën ngaa jouer am nga say comédiens yu baax am nga metteur en scène bu baax war ngaa mën a def loolu. ñu gis ni tamit ci wàllub aar rawatina ñuy def ñu nekk ci jafe-jafe bi foofu laay ñëwaat est-ce que ci seen carrière tamit parfois euh, du ñàkk euh, organisation bu maanaam mbébét euh, li nga xamante ne mooy seen ëllëg ndax gis nañu sax ñenn ci yan ñu leen di kettal bu ñu feebaree wala bu ñu amee jafe waaw loolu am na petit changement bu ndaw boo xam ne amoon apporté nañ ko parce que am na mutuelle nationale de santé des acteurs culturels boo xam ne mettre nañ ko en place bu commencé dox. Hmm. waaw foofu noonu artistes yi bëri bu feebaree mën nañ ñëw ci at mutuel boobu noonu parce que seen mutuel la mise en place par le ministère de la culture et le ministère de la santé je pense que loolu am na loo xam ni euh, jéego la par rapport ak santé artistes yi euh, beneen bi mooy statut de l'artiste tamit bu duggee je pense que buñ ñu considéré comme travailleur bu ñu buñ li ñuy laaj yépp buñ ko amee je pense que boobu tamit dinañu mën a faju comme ñeneen ñi ni ñuy fajoo Hmm. loolu daal xam naa ni am na si tuuti jéego boo xam ni dina am changement. Hmm. léegi ñu wax ci actualité bi ndax kon jëm ci théâtre daanaka ñoom dañuy dox ànd ak jamono Sénégal fi mu toll ak lu ñu dund fan yi wees fitna gi métti juddoo ci coowal Ousmane Sonko aji Sarr ndax am théâtre am na ci taxawaay bu mu mën a def ba jàmm am dal am. defe naa ni théâtre def naa premier rôle am loolu la man foog naa ni sax li indi yenn violence yeeg yenn yëf yi ñuy def fii ci Sénégal c'est parce que woon cinéma amul woon art parce que lii théâtre di jëriñ mooy déstressé hmm. parce que population boo bu stressé neexut a canaliser hmm. je pense loolu yëpp bokk na ci li tax tey jii ni suñu population jóg yàq fi yàq fee hmm. parce que tamit koo xam ne demoo concert koo xam ne demoo seetaani théâtre koo xam ne demoo seetaani comédie dañ lay tëj rek ñu couvre-feu de pendant loolu tamit dina am loo xam ne da koy bëgg a génnee benn instant waaw loolu mooy rôle théâtre tey théâtre moom bu mënu bu ñu mënoon bu ñu mënoon di bàyyi théâtre muy def je pense que dina lu bëri dinañu dinañu ëmp parce que théâtre dafay apaiser ñun si comité de relance bi mbir mi amee hmm. dañoo indi tamit suñu parti partition ku nekk jóge na fu ne ñu def benn sketch boo xamante ni lu amul jàmm bokk ma lu dul jàmm bokk ma loolu moom mooy suñu warugar te loolu mooy suñu rôle rôle théâtre hmm. théâtre dafay réguler dafay réguler ba pare déstresser peuple bi pour que ñu bañ a egg si yenn extrême mhm. noo gisee taxawaa ñu ndaw ñi dugg euh, ci euh, métier bi léegi euh, ci wàllu théâtre ndax xarañ nañu wala gis nga yaakaar ci ñoom waaw am naa si yaakaar bu bëri bëri bëri franchement am na ñoo xam ni vraiment gis naa leen euh, ñu nekk ci benn forme euh, acteurs yoo xamante ni vraiment ñuy dem en puissance. Mhm. Ah, vraiment loolu dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax ñu xam ne relève bi c'est assuré lenn rek laay joxe mooy que lépp luy nit di def da nga ko war a am formation. Mhm. Ah, waaw il faut nga formé wu même bu fekkee baax nga demal am na ay technique yoo xam ni mooy tax nga yàgg fi. ñu leen ñu leen tamit est tamit du jël diir. Euh, mënul jër lii parce que école des arts mi ngi fi aussi ah école des euh, waaw dina jàngale xëy na foofu tamit quatre ans la ñuy def. Mhm. waaye def la koy jaral ñun ñii it quatre lañ fa defoon bañ fay jaar. def la mais je pense que tey dañu war a réformer. Mhm. réformer réformer loolu xaw a wàññi diir googu noonu pour que nit ñi di mën a di jàng ji foofu noonu ndax tamit mun loo loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam. Mhm. waaw boo bëggee yàgg tamit euh, technique bi lañ fay jàng kenn jàngu fa tubaab ak leneen. Euh, technique technique théâtrale la ñuy jàng ak technique cinématographique. mais am na ñi nga xamante judduwaale la ci ñoom. waaw non non li may wax rek bi talent moom di ko di ko di ko di ko di ko suuxat. Mhm. waaye boo mais boo ko suuxatoo day jékki-jékki mu dañ <laughs> mais fekkee ne technique baa ngi fi. Mhm. formation boobu moom moo may ngay changé tey jii nga bi bu gënaaw subaa nga joué rôle bee après nga joué rôle la koy may. Mhm. yow ci sa bopp euh, Pichini nii wax ñu tur boobu fu mu jógee ak ah, fa jaar ba yegg si fi yow. waaw man euh, école des arts laa génne 97 laa génn école des arts formé benn groupe bu tudd les sept courses ñun sept lañ woon même promotion euh, ñu doon def théâtre académique vraiment représenté Sénégal fépp fuy festival francophone ci monde bi euh, dem ñëwaat donc après man ma dugg un peu si humour après jékki un jour ma def benn sketch sama one man show sama premier one man show en Euh, si mu am benn sketch bu tudd euh, école sénégal japonaise hmm. comme jamono boobu ñëpp japon lañ doon wax hmm. donc ma def si benn école sénégalaise benn école japonaise après loolu nag mu am way bu tudd piscine yi hmm. si lañ ma woowee euh, joolóol yi ñu doon def benn compilation bu tudd reebatas reebatas nag ma ñëw ma joué fa piscine yi xëy na loolu am succès loolu moo waral ñu may tàkkantalee piscine sëñ bi Abdel Kader Diarra ñu gën koo xam kon ci Pichini di artiste comédien jiite tamit comité de relance du théâtre ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité. jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax ci invitation bi aussi monsieur